maa ngi am mbégte ak contentement bu man ci li nga xam ne mooy jama jama dégg ñuy wax ne Yaya Jammeh dafa bàyyi langa anglais dëgg la ndax Commonwealth mu nu mel ne francophonie mbootaay yi nga xam ne ñooy lakka anglais lakkaw anglais man génn naa ci ñooñu ndax boo xam ne ni taamuñu fula amuñu fayda duñu wax loo xam ne mooy dara dangay taxaw nga waleen ko waaye doo naka di nguru nguru ak ngara ngara si suuf anglais parce que ne tey bëggatuma Gambia ñu yaakaar ne ku ka tegul war a mun a dugal ci gouvernement bi déedéet because dama bëgg wan tubaab ni ko weex moom li mu ñuy jaay doole ci am am ak ci xam-xam du loolu mooy tax ñun ñu toppa ci ginnaawam toppa lakam léegi mbokk Gambia people waa Buruus wi Serekunda Bakau Banjul administration people nañu jàppa gëm seen boba gëm ne Yaya Jammeh taxawal na laka boo xam ne duñu bëgg ñu koy laka ñun ñu ko nampa ñu koy laka ba ñëpp am ko léegi dañuy xool diggante Joola ak Soose diggante Soose ak Tukulóor Haalpulaar diggante Pël ak manjaago diggante balanta ak sarawule ak wolof ak lébu yëppa ñu xool bu ëppa fii ci Gambie bu ñu xoolee dak laka bi gën a bëri people ñu daal koy commencé tamali di ko jàngale ci école yi di ko laka ci discours ak ministre yi nga ne ñoom laa jiite nañu bàyyi di wax anglais because kenn du ko tuddati nit boo ko toppa di ko toppa te munu laa amin njëriñ danga ko bàyyi bàyyi li nga xam ne war nga ko tabax may waanaat parce que ne tey dinaa yebal sumay ndaw ci daka yi ci kër yi ñu faga leen laaj leen la ngeen di laka bu dee ne joolaa la ñu ne la kasumay nga ne kasumay kepa koto boole ñu am ñu raga ñu dem kër beneen xalpulaar faga ñu am ne tuuloor nga ñu dem ci seereer yi ngiroo yaaree jam a ñaaja am dig rek ñu raba ñu dem ci soose ala man a tiyaara kayra ala barka mandin koole te xam naa ne soose ak jola yi bëri nañu Gambia people waaye nañu ko tamali nañu ko tamali kuy defaati discours kuy waxaati leneen na nga anglais tey laa koy mu da laka man Yaya Jammeh because laka bu ñàkk kersa la laka boo xam ne doo defee faute kenn du ko def nga faute français dangay wax Yaya va aller à l'assemblée ñëpp a tàccu waaye boo ne l'assemblée va à Yaya ñëpp te bu dee la mu ko wax ci te kenn du la xeetaan so because Yaya going school school going is Yaya is not school Yaya because Yaya school is is school dafa gudda français sax moo koy a neex angale ndax danga daan Yaya Jammeh is a very président mooy kii vrai président la bu dee angale euh, ndax naa ne yaay Jammeh est gentil est un bon président il est galant waaye anglais xamuñu ay taga seen la amul taga di taga nit amul soo nit bu demee lu baax dama di war da taga moo tax parce ne tey ma bëgg nga xam ne laka soose dañ koy commencé di jàngale ku bëgg a fii nekka président dangay dem nga laka sa laka mënu ko binda mënu koo waa nit ñi kon immigré yi nga xam ne ñu nekka London Danemark ñu nekka Sweden boo leen wàccee Sénégal Gambia bu waa anglais ala mana caara kayrala ala barka mandin kole siara jantale mandin kole siara hakaten kasumay kasumay ket koto bolo koto mana kamunu ko koto bolo koto manye manyo koto ma kep koto manye manyo koto kep ala mana caara kayrala mandin kole ya jame siara jantale mon kole jantale ya président Gambia di kola ka ci soose di kola ka ci joola ci sarawule ci wolos te tegu duma loo xam ne dama ko di teg par la force waaye il faut ñu xam ne waa Comel West duñu dara duñu tos because Gambia nekk na dëkk boo xam ne kenn duñu noot nootel jeex na man faale wu ma koo ne danga di yor sa alal di ko teg ci deewu nit ku ñuul di ko sufel Gambia du bañ du ne duñu nangu loolu nañu nampa li ñu nampa nañu lakka li ñu nampa tubaab bi di ko wax alphabétisation alphabéti alifeti al bet beta bet ala waaye français sax dafa xaw a ñanga waaye nice goal je remercie tous les sénégalais waaye Yaya Jammeh because dama leen bëgga bëgga France bëgga yeneen dëkk yi la ka ñoo gan Commonwealth I have it it it people will gather it is is English kenn dootu ko lakati ala mana tiara kayra la ala barka mandin kole sare jantale mandin kole kuy waxaale na waxaale ci soose kuy arrêté taxi na wax ci joolaa ku jënd soow na wax ci haalpulaar eh kuy peinture na wax ci njaago ala mën a caara ala barka mandin kole si ala jantaale mandin kole everybody you king this is finish anglais finish anglais you kisses maa ngi nuyu di remercier Sénégal au revoir Sénégal seen laka neex na au revoir ci français mooy maa ngi ñibbi au revoir yaya rentre au revoir Gambia ko fi waxate thousand to thousand because I thousand thousand to tii ina ya tii tii dina la tii ci kriti bi yee eh eh, eh eh ala mana ti ala kayra la eh ala